li ci gàttal rek nitu yàlla la ñi mu ko bokkee ñu mu ko bokkalit taalibe Sëriñ Tuubaa la lépp wéyee nag sëñ Saliou doy na soññ ci lépp doy na soññ ci lislaam doy na soññ ci sëriñ bi doy na soññ ci taalu bi doy na soññ ci xam-xam nañ su ko lim mënuma ci wax daal yàlla fi jégalu ko te laaj ko ci xéwalam yi tam bu dul jeexale te diglu ko ko laaj kenn jéemoo ko lu ko gën a laaj ko sant ko ak laaj ko ko la ma xam daal man Amadou Gueye mooy doomu Sëñ Tuubaa jooju il était légaliste et républicain amoon na yéene lool ci dëkk baayam bi nu koy xam noonu it noonu la dëkkee jàng alxuraan guddi ak bëccëg foo toll alxuraan bu yorul kurus gi rubir alxuraan a nekk ci làmmiñ bi bu tëddee ci ñëwaan bi bu tëddee ci néeg guddi boo nekkee ci néeg mu néeg bi lëndëm bis gëj na ko gis lool fekk sëñ bi nekkoon ci xel mu génnee mu daw si ñëw di ko euh, tafu si far fekk ab pepp ceeb yu tuuru nii sëñ bi yor ab kaamil nii ci loxo bi di for pepp yi bi mu demee ba nar a tànk bi nar a laal ceeb bi rek da ko xëcc bàyyee na waa Sénégal ay junni junni yu am njariñ te bàyyeewul Sénégal benn personne bu amul njariñ loolu moo ma ta bàyyi xel léegi mun am néeg di baaxoowuñ di ca dugg te waxoo asalaamaaleykum daan la koy wax ci waxee wu yomb woo ko mën a xamee daan ne asalaamaaleykum day dana day ubbi buntu jàmm day feewu ay day waral ak jiboo ba bam ba nga xam ne boo xamul yàlla yi da nga xam ne intérêt bi jàll ko ci yow tuddee yaram daw xol tooy jàmbaaru lislaam ju dëkke woon yar jubal ak jàngale Seex Saalihu Mbàkke bokk ci nit yàlla yi nga xam ne seen digg ak seen boroom amul taas benn yoon ci diir bi nu fi nekk ndax li mu doyle ak boroomam matal na ko sëkk dundam jéegoom ak jaar-jaaram lépp mat lépp leer te lépp sell jëmm la joo xam ni. bokk ci baqiyatu salaf mooy dafa bokk ci ñi fi mujj te bokkuñu ci génération bi ca jamono jële lañ bokk mooy mag ña ay waajuram mm, ridwanullahi alayhima doonatul daanaka lu kenn di jàngale ndax soxna fa jaxate Euh, mooy waajuram bu jigéen soxna Fatou Diakhaté sëñ Modasta ko jur sëñ Modasta defe naa réew mépp ko xam. bokk na ci daal ci ñi génération bi jiitu daal ci yoonu murit ci la bokkoon. nekkoon nit koo xamante ni kii alxuraan rek rek rek moo di dundam nekkoon nit koo xamante ni kii ku maandu la koo xamante ni kii jaamu yàlla képp moo di dundam. taalibe sëñ Tuubaa la woon mag la xam naa ci at moo sëñ bi duñ sore ay at yaakaar naa ne. waaw du ñuy war a soree at xam nga ku ci wara a kii. jàmmu yàlla ak dundaloo li nga xam ne moom la mbaakool xam sëñ Modou Dia sëñ Modou Asta ci digg loolu la nekkoon jàmmu yàlla ak liggéey dundee rek la xamoon mm, ba na muy nit ku sell koo xam ni loolu sëriñ bi taamu néegam ngir jëlee fa ñëm fa jëlee soxna Fatou Diakhaté ni mii nag kenn la ca di koo xam ni kii moom moom moom xamuñu suñu Modou Asta moom xam nanu ko. man jotuma ko xam lu bari. ndax liñ fi fekkante xam naa ne euh, du ëpp ay juróom yaat yooyu. dund nañ ak moom li dund ak moom it la ko Sëriñ Tuubaa jàngaloon lépp pratiqué na ko suñ kanam nu ko gis mooy moom jàng na alxuraan ba wattu ko jàng na xam-xam ba sori ci lool. da daan jàngale euh, téere xam-xam yi téere Sëriñ Tuubaa yi da ko daan jàngale. ne jëmm yoo xam ni moo leen jàngal. Euh, sun maam soxna Mati Jaxate nga xam ni doomi Sëriñ Abdourahmane Jaxate la. moo ko yar. moo ko jàngal Masaalikul Jinaan moo ko jàngal Risaalul Xayrawaani soxna Fat Jaxate nit la woon koo xam ni bari kersan lool yéwén lool mën a mën a dimbale mën a saraxe mën a joxewu ñam kom gis rek eh, jàpp na daa war a joxu ñam nekk koo xamante ni ku ko amoon xam-xamu diine la nekkoon koo xam ne kii itam ku dëggu ku dëgër ku ñeme jaamu yàlla ku ñeme jaamu la nun miin nan ko loolu lan xamoon ci moom mokkoon xasida yu baree baree bëri nee na ci ñi daan dëbbe xasida yi di daajal sëñ Tuubaa di ko jàngal daan yëkkati xam nga sëñ Tuubaa leer yi tagg yonent gi muy tagg yonent bi ak di ko di ko màggal di sant yàlla xasidaam yi leer yooyu da ko daan moom moo jiite woon jàng bi moom sëriñ bi jëmbam ak ñu mu tànn ñu war a taxawee taxaw boobu te it mbindeef yépp ñoo ko war a jàppale ci liggéey liggéey bu sell boobu ba ci jigéen ñi sax muy waa këram yi am na ci ñoo xamee nu ñu war a tooge eh, bu waxtu wa jotee mu ñëw déglu leen ñu santale ko yàlla ci xasidam yooyu soxna Faati ci ñi daan dëbbe la moom kooku nag mooy waajuru eh, Serigne Saliou nga xam ne ci moom la bàyyi ko bi sëñ bi ñëwee e, njaareem foofu la soxna faati door a amee Cheikh Saalihu nag ñu jiitu géej gi ñooy doom yu mag yi ginnaaw géej gi la la feeñ am na ci ñu ko na ci ñu ko ci mag kon ci ay doom yu yu mujj la bokk ci zil qaada muy 15 zil qaada 1915 boo demee sëñ Lamine ko ci mi ngi ganee àdduna ci atum 1915 fee nekk jant bu fas yéenee leeral jamonoom ak waa jamono. bi mu feeñee jamono ci atum 1915 la Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana bindoon ci moom bayit Bamba ngi toog keroog ci di waxtaan ak Cheikh Malamine Diop ba woon ñuy waxtaan am ndaw lu ñëw ci Bamba dal koy deey ni soxna faat jaxate am na ganta mu jël loxoom booba mbaake bind ca suuf asaaliya cey mbaake muhammadul amin dem dellu jël xalimaam bind ca ay bayit yu wér jox xadim ab xaalana bi fadli saaliya baaxil lana jaada saaliya ab xaaw samsan fi sama adërihi يسخل منه وجهه كاليا أقام من الأديان مباركا مسان فاليا سرين ساليو نك bi mu feeñee bokk ci caati sëriñ bi sëriñ bi dafa am ay taaw. maanaam sëriñ Modou Moustapha sëriñ Fallou. mooy ñi nga xamee ne da leen a meññi ci jamono yi muy nekk ci jihaad ji ak mettit bi ak liggéey bu metti bi caat yi nag mooy gannaaw bi mu liggéeyee ba ba liggéeyam noppi ñu koy fay muy sant ci la kon ñoom ay may yàlla lañ waaw te ku dem ci mbindi sëñ bi da ko gis fu mu koy waxee. bisit sëriñ bi ñëw di soññee. ci ab jotaay sëriñ bi doon ku ràññee jotaay ba Seex Saaliwu Mbàkke moo nga fa nekk ca sëriñ bi ñëw fekk ko fa ba mu ñëwee toog ci wetam ñu puus ko sëriñ Isa jën ko xaw a puus ko lam jublu woon ca puus ga mooy ngiruk teral Seex Bamba ñëw am fu mu toog fu jàpp sëriñ bi xëccaat ko mu ñëw ba jige ko Isa ngi toog keroog booba mu dal ni ko isaa xanaa xamoo ni kii saa doomam gaa yëpp xool ko xam ni mbàkke moomam i ndaw noonu ci zahir amoon relation bu bu neex digganteem ak sëriñ bi comme rek nit ak waajuram rek léeg-léegi sëriñ bi fàddu xalwa dugg ci nekk ak boromam bu génnee it bu ko gisee da koy namm day daw ñëw si eh, namante ko moom wax nañu benn bis gëj na ko gis lool fekk sëñ bi nekkoon ci xalwa bi mu génnee mu daw si ñëw di ko euh, tafu si far fekk ab pepp ceeb yu tuuru nii sëñ bi yor ab kaamil nii ci loxo bi di for pepp yi bi mu demee ba nar a tànk bi nara a laal ceeb bi rek da ko xëcc mais ba mel kuy bëgg daanu sëñ yu fàttewul loolu ba ba bi muy nekk mag da ko daan nettali. sëriñ Saliou jàng na alxuraan ci kanamu waajuram ba wattu ko ci kanamu waajuram. sëriñ bi jox ko nijaayam sëñ Hamzatu Jaxate lam ca wax ba ko koy jox rek lu significatif la nee na ko joxuma la ko ngir ne ni wolof di def mooy eh, jël nit di ko jox nijaayam loolu aaday wolof la mu ne loolu nag taxut dama am lu ma def ci yow te bëgg nga def ko ci ñoom dama laa tarbiya def ci yow ngay nitu yàlla def ci yow jikko ju baax dama bëgg nga def sëñ Amsatu moo leen jël yóbbu leen Touba fii la ko sëñ Touba waxoon mu nekk fi gannaaw bi mu tarbiyaa ba noppi ci Touba fi njëkk dëkk la euh, moo tax gis nga sëñ Saliou ku yàlla dimbale la sëñ fi mu gën a bëgg muy dëkkam bi ak alxuraan ak ñi mu defar ñooñu ñoo ko defar waaw ndax mission moo rëy moo tax fi mu li sëñ Touba gën a bëgg muy Touba ñi mu defar nga xam ne ñoom la def ci ñoom jikko yu rafet alxuraan ak fi yàlla yi moom la dajaloo fii ci Touba ñu defal ko fi mu ñëw fii moom ak sëñ magam ju tedd ja sëñ Abdul Ahad ak rakam ju baax ja sëñ Abdou Samad ak sëñ Cheikh ak sëñ Abdou Samad fii lañ nekk fii ci Touba sëñ benn ci mbokk yi njaxate yi sëñ ku tudd sëñ euh, Assane Jaxate doomi jàmbaar moo leen doon jàngal ñu nekk fii jàngi fi alxuraan tarbiya fu euh, li ñuy jaarale nit ku baax ci coono ci tarbiya ci ñeme yëpp ñu jaar leen ci nee na dañ daan buub dañ daan euh, sëkk li lépp lu nit bu baax nee daal sëñ bi moo diggoon bu ñu leen ràññeelee ak benn ci xale yi li ñëpp di def nañ koy def nee li tax ma jàpp ne sëñ bee ko digle woon mooy sëñ sëñ Saali wax de seetlu na bi fi sëñ Tuubaa jógee kenn ñemelu ñeme ñemeetu loo leen liggéey loo euh, waaye bi mu daataan tàmbali njàngum xam-xam waajuram dem na mu nekk nag ci loxo yi sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha di léppam di waajuram di léppam mu topp ci gannaawam defu ko waajur lu mooy def ko ab sëriñ sëñ Modou Moustapha itam deful woon defu ko woon ab dongo moom defu ko woon rek da koo defoon ab sëriñ ñoom euh, ñi ci gën a doon yi ndaw wax nañu ni bi ñu daataan xam ni sëñ mu Moustapha di toon si seen taalibe bàyyim dem nañ ba doon mag ndax balaa masa lekk wala doomam lekk day da da leen di andi mooy leen di joxal raxasu te leen raxasu ñu raxasu bu ñu jëfandikoo ba noppi yëreem yii leen di jox ñu di ci nga xam ne dañoo jàppoon ni seen taalibe baay bu mag la noonu la leen dën tarbiya moom euh, ñu nekk ci loxoom Serigne Saliou jàng jàng alxuraan ci jàng euh, xam-xam ci loxoom jaar na euh, tindoo di mooy fi nga xam ne fi la sëñ Modou Moustapha sant jamonoy sëriñ bi yóbbu na ko fa fa nekk na fa ab diir di fa jàng di mu jóge fa yóbbu ko ci daara yu bari ba mu jàng li mu war a jàng lépp wëlbatiku nag samp daara nag wëlbatiku topp sëñ Modou Moustapha di ko tërbiyaw ala xidmati Cheikh Saliou Mbacké nekk ku teel a xam mission wam ci kaw suuf bi muy ndaw la xeex ak bépp gàllankoor bu mën a dox ci digganteem ak yàlla jubli ci moom di ko jaamu ak liggéeyal 1933 yaakaar naa ci la sanc got ba mu koy sanc ni lañ ko Cheikh al Imam waxee njëlbeen ga moo doon léppi boppam mooy jàngalekat ba mooy jëwriñ tool ba mooy jàngalekatu xam-xam ba ndax booba amagul ñu ko ko defal ñu ko ca féete waaye moo ca féete woon ba mu demee ba am ñu ko ca féete it ñu ko ca féete daanaka moo leen juddulu ndax dafa bokk ci boo bëggee sañc dara mu taxaw dangay ngay fexe ba sa ñoñ di ko def jaral na ko nag lu nekk ba mu amagul ñu ko def fey na ci ay nit neexal na ci ay nit fasant na ci kóllëre ay nit ngir yàlla bëggoon ñu jàppale ko ci ba taxaw waaye ba mu demee ba mujj gi nag daa mujj jàngalekatu alxuraan bi boo ko nekku si sëriñ mu ne sëñ xam-xam boo ko nekku si sëriñ mu ne sëñ Saliou nga ne ko foo ko jànge mu n fii jawriñ ji nga ne kuy sëriñ ministre mu ne fu kañ nga fi ñëw mu ne ba may gone loolu mooy koo xam ne léppam moo ko moom moom nag ni mu doon tërbiya la ci jiitu mooy yar gone gi ci ci ci ak teey ba mu nitee sëñ moom nite gi lay njëkk a fexe ci nit ki ba xam moom mooy lan xam ne yàlla sakku ko ngir neen sakku ko ngir caaxaan sakku ko ngir wor sakk ko ngir dara loolu moom yi bi mu ciy jaar ci tàmbali jaxasoo gi muy jaxasoo gone gi nga xam ne xëy na gone gii kët gone gu ndaw na ci jàng la toll ci lay mooñaalee loolu buy jàng. bi sëñ Modou Moussa jógee mu mel ne mës ta def dara takk la xasaayam topp ci gannaaw sëñ Fall sëñ Fadil. diggante ak sëñ Fall da ko daan seet sax seet si na ko xabbaan euh, sëñ Fallu yàgg naa wax ci sëñ Saliou lii feeñ ci moom nii xilaafa géem gi ak maqaama yu rëy yii yàgg na ko wax sëñ Fallou da ko daan liggéeyloo daana ko yabal muy jiite fu bari ci réew mi ba ci ndar di liggéey lépp lu mu liggéey te booba yooye jamono ku mën a liggéey la ndax booba yooye jamono ku teel a bari mbooloo la ku bokk ca mbooloo ma ka peese eh, gerte xamal na ma ni ci xabaan nga xam ne ginnaaw got mooy eh, ak njàppandal xabaan mooy daara ji ci topp nga xam ne daara ju yàgg la jiit na sunu juddu lu yàgg nee na ma te peese na fa ay jamono junniy bëri ko cent tonnes yoo xamante ni booba dañuy konko dañuy konko waaw dañuy konko booba waaw mille tonnes mu nga waaw yoo xam ni booba dañuy konko ak yari loxo machine amut nga xam ni booba loolu buñ ko jaayee xaalis bu takku la kon moom mënoon naa am lépp lu nit di soxla mënoon na ko am ci jamonoom waaye nee na saa suñ peesee bu ñu bu xaalis bi génnee du ko xam noonu la koy boolee ak mboolu ak ak ndaw ñu yët ko si Mouhamadul Fadal ndax sëñ Maodo Fadal daana wax ni jumaa ji li ci saal bi def buñ ko ci génne woon mag ñi bari ñu koy nettali te booba ci zahir ay ay atam bëreegut am néeg di baaxoo wuñ di ca dugg te waxoo asalaamaaleykum daan la koy wax ci waxee woo yomb woo ko mën a xamee daan ne asalaamaaleykum day dana day ubbi buntu jàmm day feewu ay day waral ak ak juboo ba bam bam ba nga xam ne boo xamul yàlla yi da nga xam ne intérêt bi jàll ko ci bu fekkee da nga da li ni cell mun la waxal alhamdulillahi rabbil alamina nga wax ko mun yarhamuka laahu nga ni cell mun la waxaatal yaxfirullahu lana wa lakum nga wax ko mun la loolu ci diine la bokk daal ni suñ mag bi kat amoon na kum masa jox ay gone ba ci yàgg mu woolu ca kenn kooka eh, ca donga ya donga ya am ca ñu ñëw fi moom ba ci yàgg am ca kurtis li ni cell sëñ bi ne ko waxal alhamdulillahi rabbil alamina daal di waxaat li ma waxaat léegi sëñ bi ne ko lu taxan defoo ko mu ne ko dama koo xamul sëñ ko yow ki yor mënut a ndax ni nga waral naa fekk nga xam ko ci moom bu yàgg. ku xam na ne mos digganteem ak dong yi mosut am caabi bu xasee ba wàcce ci daara yi yor-yoru altine fekk ñuy jàng gone gu noppi gone gu tar rek yaa ngi ci sëñ directement amul feneen fooy jaari ñëw ko fees ko dell nga gis ko mu dindi ak boppam lal jël mburu di ko daggal ci loxo loxo mi tedd ya gone yu kenn ku nekk ñëw jël mu toog wër ko ni. ganaar ni ko ay cuujam di wëree noonu la meloon lépp it kenn amul sa intermédiaire luñ ne sëñ baa nga fële naa ko xaar fii déedéet ëtt bi nga ko fekk di gone gu ndaw sa jëwri ni daara nekk ci wetam ki lay jàngal alxuraan nekk ci wetam ki lay jàngal xam-xam nekk ci wetam yow dong bi ni nga amee sañ-sañu nekk ci wetam li nga bëgg a wax ak moom it doo ko ne sëñ bi waxal ma kenn sëñ bi dangay ñëw ne ko man de nangam wala mu laajal la nangam xam say situation yi nga nekk yëpp réglé la ko kon ku taqoo woon la ci taqoo goo xam ne ak jaxasoo la daa bëggut ak taqoo goo xam ne ngaa ne ci kër gi mën a ci kër gi kooku ak taqoo la waaye taqoo jaxasoo nag mooy koo xam ne jeg jéggat ba ci moom nga wax ko wala mu séen la wala boppam nga wax ko loolu noonu la nekkee woon mu xaalata la benn jaxasoo bu jafe la boo xam ne kenn mënatu ko sax léegi bu guddee li ngay xam ne sëñ baa ngi fii soo yeete njël benn genn gone doo ko fekk lalam ñëpp nga ca kër sëñ ba solu ca néeg ba mu fanaan moom yaramam bu tedd wa fa la gone yay fanaan bu fajar nga ñëw asalaamaaleykum mu ne na waaleykum salaam nga ne ko mbàkke mën la kebe wala nga ne ko mbàkke mën la jóob nga tànn say gone ci li ci moom nekk ko dina dem leen jàngi keneen ñëw tànn ay goneem keneen ñëw tànn ay goneem waaye bu fekkee mi ngi ci daara ji fanaan si fi rek fanaan gone yëpp fa moom la ñuy fanaan ku xëy itam booy tari directement ci sañ ba ngay dem kon noonu googu jaxasoo noonu la nekkee woon ci daara yi di yarkat boo xam ne day séen di xool di xam di xammee di ràññee sa dem gi jaaxal na noo yow lan xamoon nga dem ba noo fu nuy ti xel mu dal àdduna yaa ka mën a woor xamoo lu baax xamoo wëlër daw loo fi gis danga ko woor sow mi lekkaat amul soro ay way ku dee ti yar gone waaye Cheikh Abdou Lahad moom um, nii mu toppee Serigne Fallou noonu la ko toppee woon booba daara yi tàmbali naa bari liggéey bi tàmbali naa bari li ñu liggéey bari na lool jamono yooyu waaye lépp lu ñu liggéey noonu lay noonu rek daara ju nekk la ñuy liggéey bu ñu noppee ñu ko dajale daal di boole boole leen ndaw ñu yët ko Cheikh Abdoul Ahad. sëñ Amsatou mu sëñ Abdoul Ahad moo ma ko wax lii ko sëñ Fallu seereel ci ne kenn mënu ko jumaa ji sëñ Abdoul tamit seeral na ko ko ne daan jël lu mel ne eh, gaali eh, gura eh, dàmbay gura yii def ca la lim am lim bay ak liñ ko jox addiya lépp dajaloo ko def ko ca jël kenn jox ko ko bu demee ngir sax ngir. ngir sell gi ak bañ cee gis dara dana ko joxe noo xamee ne sax buñ ko ibbiwul duñ xam ne alal la ca ne dañuy jàpp mën ngaa jàpp ne góor ca nekk ba laa Abdoulaye wax ne ne ah moom ñii de kenn mënu ko fi. bu dee wàllu mbay mi dalay won ni man na mbay mi ñi ma koy jox maa ngi ci yem suñ tubaab ma jur jur leen kenn gënuma ma ci yey waaye damaa bëgg mu gën a sakkan moo tax ma di ko yóbbu. ma bëgg nag ngeen ànd ak man ci loolu ndax man mii koy di leen taxaw di leen dundal di leen jox aw jiwu de benn doomu gerte du ci dugg sama gimiñ wenn gubu mbool du ci sama gimiñ jann àndaar rési ko ci togg ci sama njël lépp la ñuy ànd joxe ko damaa bëgg nag ngeen def ni man bu leen jeexaatal seen bopp bu leen jaayos ngooñ bu leen yaru nag bu leen yaru bëy bu leen wut alal ndax ne ci daara gi di wut alal day waral boo fi jógee mu jafe la wala boo ko amee du barkeel wala boo laaxiraa doo fekk dara ndax day fekk nen yi nga xamante ne da nga koo naanaan wutoo woon ay ginaar bu ngeen bëggee nag nen yi ñu toj ko ba laaxira nga am ginaar yu bari da ngeen koy bàyyi ñu boof ñu boof ko daal lay gaaral ne la am nen mënoo koo baxal lekk ko wu ñu ko at am cab cuuj nekk daara gi nag di wut alal ak joge fii mu mbubboo sëñ bi di ko daraja wax ngir utiliser taalibe yi bañ teg la foo xam ne bii yàlla teguloo fa ci ay pexe wala ak njibar wala leneen dangaa mel ne ko jaay sa addina sa laaxira jënde ko sa bu ëllëgee itam mën ngaa dem àjjana ci baaxu Sëñ Tuubaa wala ñu mu la waaye garaatu murit saadix yi ñuy wax ku yàlla gërëm ak yooyu dootoo ca bokk te loolu ñàkk caa bokk daray àddina jëru ko loolu nag xam nga bu la ci deeyee ba noppi wan la ne nag maa ngi ko waral a gën a mën a def ñëpp ndax man bu ma ko doon lekk du du ma ngi ma koy jox ñoo ci yem waaye damaa bëgg mu sakkan ndax bërigo pepp kat boo ko defee njël togg ko kenn du la yedd waaye boo ko jiyee nag laxasaa yu bay ko bu nanga nangami téeméeri bërigo nga ci yem loolu laa leen di fàggul te bëgg te bëgg ngeen ànd ak man ci loolu. mas naa toog ba yàgg rek mu ne nañ ma wóol ñëpp bi ñëpp teewee mbooloo mu bari la fukki néeg ak ñaar néeg bi nekk def 16 personnes kooku dootul mbooloom juróomi nit ak juróom-ñaar bi ñëpp teewee mu ne ñëpp ñëw nañoo ñu ne ko waaw mu ne diw mu ne ana diw diw moom mu laaj moo manqué. te diw moomu mu laaj ndawee gi tax ki ki mu bokk daaram sax fàtte ne ko ndax ndawee gum ndawe bi sëñ bi jéeree ne ana diw rek kooku képp a manqué ci daara kooke lañ dem fekk ca naya ca euh, ngédd ga mu toog ñu ne ko ñëwal wuy sëñ bi mu gone koo xam ne juróom-ñaari at képp lay door a am keroog bi sëñ bi dem Touba da ko yóbbaale ba mu am fa weer comme noonu mu daan def jël gone miinal ko boppam takkoog moom ci Touba ba yara ba xolam sedd mu door koo delluwaat ci daara ja kon noonu la nekke woon ci daara ji ci ak jaxasoo goo xam ne seexlu wu leen ñooru wu leen dañ ko sosoon rëkk def ko bàyyi def ko maam def ko sëriñ def ko muy seen ndal ji xel loolu nag mooy mooy yar yi wi nga xam ni moom la lay woon ci mbay mi moom la lay woon ci njàngin alxuraan mi la woon ci toogin wi ba ci njàngum xasida si mi sax ak yëkkati yi day wane ni li ngeen ciy def lépp dee leen ko def ngir dundale ko ndigalul Sëriñ Tuubaa waaye bu ko def ngir naa damaa neex baat ak damaa mën a jàng ak maa fi ak yooyu booy bindu kaamil mu gaaral la ko noonu daan laaj ay gone gone di koy dénk am ma dénk sama gaal gi am na dégg xale xesa bu xorom bu ñu ciy nettali da ko gaal gi def def def ca miskit xam naa da doon génnee ci miskit mu fàttee tëj xomb la moromi gone yi ñëw jël ko mu ñëw ne sëñ bi ana sama miskit sëñ bi ne ko gis ma ko mu ne ko yow laa ko dénkoon sëñ bi ne ko léegi nu ñuy def mu ne ko man da nga ko da may fay sëñ bi ne ko nag léegi da ngay bàyyi ne nag léegi nag ginnaaw la demee da fonk defar gi xam nga loolu lépp infitaax ouverte nit ko ouverte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 ku ne dégg na ci liñ ci liñ ci wax nee na daana wax njabootam dee leen ziyaare Serigne Saliou ndax ziyaar ko day yokk pësteef Cheikh Mouhamadul Fadal mag mu bokk ci mag ñu jëkkee njëkkee ñooñee nettali na ma ni mas nañoo dem di fa di ko nuyu di ko siyaare bañ ko siyaare mu laaj leen fu ngeen dëkk ñu ni ko kër Serigne Saliou mu ni mu ni mu ni leen bu ngeen demee na ngeen góorgóorlu fooy ngeen ne de su ma su ma a dellu toll ni yéen mel ni yéen dama fay dem ngeen dem bu ngeen demee na ngeen góorgóorlu su ma mënoon a toll ni yéen mel ni dama fay dem wax nañu bis sëñ Saaliw day da doon jàmbat ne moo amoon mbubb mu baax moo mën a demee ci tool yi daal na baax ba mu koy wax rek ba muy noppi rek sëñ Abdou sëñ Abdou Xaadir jël na am mbubb yabale fa di ko jox addiya te fekk mbubb mii sëñ bi sëñ sëñ Saaliw bëgg moom lañ ko ko indil Cheikh Abdoul Khadir lépp lu ñu ko masaan woo daana wax mbaa sëñ Saaliw yëg na ko buñ naatab lee mu ne lu mu yëgul bokkul lu mu de na ko ko yëgali noonu lañ ko nawloo woon noonu lañ ko gëmee woon noonu lañ ko gërë woon ñoom ñëpp ñu maas ci gërëm ko bi ki des doon taxoo koo xam ne day mel ni rek xarak doom ja xar doom ja danañ taxoo waaye léeg-léeg bi mën naa lekk fàtte ko naan fàtte ko ah, sëñ Saaliw mbake ni mu taxoo ak yow gone gi nii la lay leele di la jox ngay lekk danaa ñëw ci daara ji contrôler sax la ñuy togg ca mbanaka takkusaani suuf mas naa ñëw njàppandal tibb lu ca wattu as wattu mooy li ñuy tànq ñeex def lu ca cere ci digg ngoonu ngoon toog ci toog ci ngay njowaan gi di ko mos lim jublu mooy ndax vitaminaat yi ñu soxla ci lekk ndax mi ngi ci te loolu yi muy mos ci la donga yi di reer bu ngoonee kon kooku ci wàllu santé bi nga xam ne mooy euh, alimentaire bi mu ngi koy contrôler sëñ bi nag moom yaakaar naa doomi sëñ Souhaïbou yëpp moom benn lañ waaye nag sëñ Souhaïbou sëñ Souhaïbou moom moom moom moom daf ci raw nag moom ndax li ñu dañoo bokk ak mbokk bokk daara waaye bokkaat mission bokk déggoo nag xaritoo bis bi buñ nekkee Touba ñoom ñaar bis bi dinañ ci gisante lu ëpp ñaari yoon kii dana ñëw seet si ko ci bëccëg bi bu guddee sëñ sëñ nga xam ne sëñ moom guddi la baaxoo génn dana ñëw faw guddi gi dana ñëw seet si sëñ Saaliw nekk fa daanaka guddi gépp ba boo muy tudd ba mu fa laa jógee fajar dana jot te loolu moom daanaka ñoom ñaar bu ñu nekkee Touba loolu ba ñu nekk ci daara ji gis nañ waxtu ne euh, sëriñ Saliou di ñëw ci sëriñ Souhaïbou. moo ko sëñ Mbàkke Soxna Lo nag am nañ ay relation yu dëgër yu teel ndax sëñ Mbàkke sëñ Saliou yàgg gën a koo liggéeyloo te booba sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma mi ngi fi toolam yi ci njurul la ko jëkkal sant ci ab liggéey booba sax sëñ Cheikh wax na ko ni ko xanaa kay sëriñ danga koo bëgg a samp am nga ñeneen ñoo liggéeyloo ñu dut sëriñ dem nañ fi boo xam ne sëñ Cheikh li waxal nañu ko boppam ni Cheikh day bu fekkee woon tey dana xam ne samp bi dëgër na bu ci xel kom yu mujj yi at yi nga xam ne itam moom yóbbu nas yi yëpp moom yóbbu nas yi yëpp moom koy gën a tudd la tudd yi day aayut waaye maanaam sa borom bu dee bu morom bu dee sa yëpp dara bëgg a weer sa borom bu dee sa yëpp dara koo bëgg a jégal kon nag mooy borom moom dana fekk su lay di yëpp jégalu suñu borom ñaan mucc Cheikh Saliou Mbacké nekkoon aji defar fees dell palaasam foo ko musaane gis yéemu ngir yërmande jëm amoon ci jaam yi daana wax ku dul yàlla mi sàkk mbindéef yi ëpp ma yërmande ci ñoom yërëm gi doomu aadama yi moom lim ci waxan doy doy na xam ku yàlla saa borom ma boole yéen ëpp ma yërmande ci yéen loolu yomb naa xam ndax sëñ bi boo xoolee li muy ñàkk ci alal ngir jot ci donga maanaam donga bi bu demee sëñ bi dana dana dana wax ko ku ko wëri buñ ne daa dem kër baayam bu doon séquence sori des na ko jëli su ne naa nga ma naqari sëñ bi dana ko bàyyi mu wax ba wax li ko naqari sëñ bi ne ko loolu saafara wu ne li mu mun taam daal mooy nga toog waaye soo mën a ngoo may toog leneen li nga bëgg lépp danaa ko def soone ay dàll mu ne yóbbu leen ko marché mu tànn yi bëgg boo ne ay sër mu ne nañ ubbi magasin yëpp mu xool yi mu bëgg nga xam ne jot ci doomu aadama ji njëkkanteeg moom ba ba ba ba jàngoree bakkan yooyu mu dindi ci li man wala bu gone gi amee chance mu toog dindi ko 100 pour wala mu dindi ko 95 pour cent te lu mu dindi du du lu la toll ci ak leer def ci loolu moom sëñ bi jaral na ko ñàkk tey tey tey milliard jën doomu aadama jone sëñ sa loolu jaral na ko. man mii rek mas naa am taas ci bët lu mel ne taasoor la ko ma ngi daan wax xonq-xonq la bu ne ci kaw boo ñëwee mu ne ma lu mu doon ma ne ko sama bët bi daa mel waaye nag bët bi neexut a gis ndax ba ni ngay turne ba ba mu koy gis mën naa yàgg waaye bi ma nee nii rek yàlla dogal sëñ bi gis ko ne lii de da nga dem ca fa ñuy fajee soo demee nag nga laajte que ñuy wax anis mooy faj loolu daa ne def ne nii ma anis li tàmbalee fii ba fii lay faj bul dem ca ka ñuy wax añ ndax fii jëm suuf lay faj xoolal ma boobu boobu coono ak boobu himma boobu itte la daa damay jàngal ne man ginnaaw laa doon wax ndekete am anis docteur bu bët ak nopp ak yooyu la nii la def loo xam ne daa ba teer ma ne anis nag boo demee li tàmbalee fii jëm fii lay faj bul dem ci añ nag ndax kooku li tàmbalee fii jëm fii lay faj Cheikh Saliou Mbacke yeesal lislaam ba mu di lislaam defar ndaw ñi teg leen ci yoonu jub yoonu siraatal mustaqim ki nekkoon ko safoo jaamu yàlla dëkkoo ko defoon ko wéttalam ba foo ko fekk day julli baa muy wérd baa muy jàngte Cheikh Saliou Mbacke nekk ku teel a xam mission ci kaw suuf bi muy ndaw la xeex ak bépp gàllankoor bu mën a dox ci digganteem ak yàlla jubli ci moom di ko jaamu ak liggéeyal. sëñ Dame Touré eh, ma waajuru sëñ Lamine Touré mi doon waxtaan sànq dégg naa ci moom mu wax loolu ne dem nañ Louga Louga yoon woo xam ni nee na bi ñu reeree tëdd la tàmbali alif lam mim zalika kitaab bu buñ jël mu dégg mu eggale nga xam ni euh, kero daa fanaan ak moom ci mu moo tax mu xam loolu liggéeyal alxuraan jooju boo ko laajoon danaan la liggéeyal sa Tuubaa la ndax lu mu mës a yëngutu rek sëñ tubaa sëñ tubaa ko ci taxat yëngutu daana wax naan sa law de moom jàngal alxor jàngal alxoraan day bëgg a bokk ci kuréelu sëñ tubaa bi rek jar na ko daane laqante ni yaa malikil alfaada wa bi turaqi xisbaka alxufaada nee na laqante ni yaa malikil alfaada wa bi turaqi xisbaka ci ci man nga yéegal yow yàlla sa sa kuréel bu wattu bi nee na war a tax murid yëpp mokkale alxuraan parce que ngir yàlla sëñ bi boo leen ci kuréelam bi kon moom gis-gisam kay liggéeyal alxuraan kay mooy sëñ tubaa lay liggéeyal noonu la dëkkee jàng alxuraan guddi ak bëccëg foo toll alxuraan bu yorul kurus gi riwiir di alxuraan a nekk ci làmmiñ bi bu tëddee ci njowaan gi bu tëddee ci néeg bi guddi boo nekkee ci néeg bi mu néeg bi lëndëm da ngay dégg muy jàng alxuraan alxuraan daawul jóg ci làmmiñam daa iman xalifa alxuraan moo la woon daara ju mas a sanc alxuraan dañ fay njëkk a jàngale jàngalekati alxuraan ba mu ko amagul dañu daan daj lu ne jël di fay su la neexee wala mu jël la ngir yàlla ngay liggéeyal waaye liggéey bépp na daan la sëñ Tuubaa ngay liggéeyal ci alxuraan ji jàngalekat bu fa mas a jàngale loolu la lay wax boo demee ba mokkal alxuraan ci këram it danaan la damaa bëgg nga jàppale ma ci liggéey sëñ Tuubaa bii di alxuraan soo demee ba mokkal ko mu ne damaa bëgg moom moom liggéey ba jullit noonu la ci meloon daraan yoor-yoor eh, eh, bi bu ma saan di julli ci bu muy am kàttan daana egg ci da koy yërëm ndax defe ne dana daanu dana taxaw fi yoor yor bi tàmbalee taxaw ba ba ji bëgg a jot. diesel dana sëgg di sëgg di sëgg bay reg-regaan ba nga defee ne dana daanu te boobu am na kattan noonu la daan jàmmu yàlla te noonu la ko daan defee guddi noonu la ko daan defee bëccëg xissa bu gàtt sëñ Bay Jóob ñu baax mii mas na ma ko cee nettali benn donga bu nekk fii ci kër gi daa bind kaamil ànd sëñ bi dem mbuur noonu mu daan def nga xam ne boo bindee kaamil da ngeen di taqoo sëñ Saaliw boo ma saan andib kaamil da ngeen di taqoo ba taqoo goo xam ne moom yow lépp mooy sa lépp kenn nit dootul mel ci yow ni nga mel ci moom day taqoo yow buy dem da ngay sañ dugg ci oto bi bu lu muy séddale da mos fu nekk da nga fay ne noonu mooy kuy door a bind kaamil noonu la aje woon bi ki des mooy dana wut ak gaal ko ba mu fees ak yére xeeti yére yi ba ci suuf dala koy wutal door laa tànn ci daara ji ju la neex na nga door dem tàmbale di jàngi boo demee boo fa demee da ngay jàngale alxuraan ji nga man tàmbale jàngalekat bi noonu la doon tërale ay programme waaye bi mu demee mbuur nag ànd ak ak tuut tànk kooka man alxuraan genn kilifa gu mag ci mbuur ñëw di ko siyaare bi mu koy siyaare bay dem sañ bi wut yóbbal yu baree bari yu doon a duy saako ba mu fees xaalis sax dugal na ko ci biir saako bi takk ko daal di woo jëwri ni kër gi ne ko àndal ak moom soo demee yow mii di jëwriñ ji yow boo dee ba ci buntu ba na nga wàññi waaye ndonga bii moom na na ko yanoon saako bi saako bi ba ca kër ga bi mu ñëwee da ko ne ah mbaa xam na ne kooku yanoon saako bi kaangum alxuraan la ndax ki mu yan saako bi képp mu koy yóbbul kilifa gi daa bind kaamil moo ko booleeg sëñ bi te kilifa googu boo ko seetee moom bindul kaamil bàyyam bindul kaamil dama yàlla baal ñu bari bari ci ñoom binduñ kaamil waaye ki yenu saako bi topp ci ginnaawam képp nekk am kaang la moom kon moom sëñ bi li muy defar rek laa bëgg du ma dugg ci détail bu xóot bi ci yeneen yi ci xewaat waaye kon li ngay déggee mooy nekkete ndawam li muy yónni di ko yenuloo sax borom alxuraan la fàttaliku it fàttali it li mu mën di ko daw ci teej tere teej teej di teej tere yi bokk na ñi nga xam maa ngi koy fàttali itam jaxasoo bu bari bi diggante góor ñi jigéen ñi siyaare kaa yee yëpp war nañu jigéen ñi war nañu berante góor ñi ñu ko fàttali fàttali jaamu yàlla yi ñu war julli juróom ak weeru koor ak ak ak sarax ak yëpp ñoo ngi koy waa idul islaam jil yi yëpp xam nañ ko xanaa di ca soññ rek waaye ku ne xam na ko ma ngi ci sama maa ngi ci sama maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom te di ko jéggulu Cheikh Saliou soxna Fat Jaxate ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul dafa cosaanoo ci diine moo tax yëngoom ak ak dalam lépp di lislaam dafa nekkoon ko am yërmande ci ñëpp ndax yéene moo nekkoon ñëpp baax te jub tegu ci yoon wu leer bàyyee na waa Sénégal ay junni junni yu am njariñ te bàyyeewul Sénégal benn personne bu amul njariñ loolu moom ma ta bàyyi xel bu dee côté économique a lim bàyyee Sénégal ci ay chauffeur tracteur yoo xam ne mën nañoo ku leen berloon seen am ñaay mën nañ faa liggéey lu jeex te jub lañ def duñ ko naane sàngara duñ ko toxee duñ ko dafaane kenn xamul nu toll ay junni junni la ñim bàyyeel ñoo xam ne dañoo bëggoon ay daara alxuraan samp ko ñu toog di jàngale riwaaya bu wér ay junni junni la lim fi bàyyi ci ñoo xam ne bu ñu ferank laayoo ci minbar mën a joxe ay leçon ci téere yëpp ay junni junni la waaye lim bàyyi ci ñu silvisé ñu set ñu baax ñoo xam ne boo diisee ñoom doo joom ay junni junni la. comme ça gi nga xam ne ku ñu xamante ni xam na barki di ma xam na ni ñii buñ toogee ci ba nga ne Sëñ Saliou tax bu leen nit ñi day jox addiya Sëñ Saliou tax bu ñu doyee nit ñi bay wax nit ñi dégg Sëñ Saliou tax bu ñu bu ñu wuuteeg seenu askan Sëñ Saliou tax ñenn ñi ay football kat lañu ñenn ñi daa dem ca làmb ja ñenn ñi daa bëloot ñenn ñi daa newetaani ñenn ñi mokkal alxuraan ba noppi di ko wutee alal ñenn ñi def sëriñ si ndaw si moroom sëñ bi di la wuli di la tërbiyee ba foo dem di fa buub di raxase wanag di yenu ay ay booli boole ko ak mokkal alxuraan euh, jàngi xeeti xam-xam yi ba mën a woy te doo dox ba nit xam ko ci yow doo jëf ba nit ba nga xam ne ci sa jëf lañ koy xam wala sa liggéey bu jàll waaye sa sa sa doxin bopp nit ko ci xam loola lañ soxla ci nit. la ma xam daal man Amadou Gueye mooy doomu sëñ Tuubaa jooju il était légaliste et républicain. ndax ni mu jeexitale ci ndaw ñi. daan na maa wax ni yeneen doom yi Sëñ Tuubaa yi ci des jeexitalu ñu noonu ci ndaw ñi ba fi mu toll nii rek boo amee ab seetlu boo duggee ci jumaa ji boo gisee ndaw ñi ni ñuy waree bërëbu Sëñ Saaliw dara warulu ko lu dul jeexital gu mu jeexital ci ñoom. 2009 euh, dox si benn milieu boo xam Sénégal euh, sëriñ bi ñëwal boppam si jamono boobu nag circonstances yooyu noonu bu nekk foo xam ne si nii. waaye bu dëkk boobu ñu nekk Cap Vert xam xam yoon boobu mu def fu mas a jaar da ngay am da ngay am ay jafe-jafe da ngay gàllankoor parce que ay wóyoo fa nekk waaye man man mën na bis man foofu laa jaar maa ngi am sama xarit boo xam ne nu ngi wax moo taale gay kooku sax su yoon bi ma ne ko yoon bi laay jaar mun na ma yoon bi boo fi jaaree gisuma ku la mën a taxaw si kaw suuf boo fi jaar di faat ma ne ko man fii laay jaar waaye bi ma jaar si mbedd am lu ma teg loxo ma jàpp sax wuyu yi la ma tourné bëgg doon muy ko tedd gi mu foto sama na ma nii ba léegi waxtu dama jamono boobu noonu te man li ma la wax ni entre 2009 2010 la kon kooku moo tax saa su nekk dama koy yëg saa su nekk dama koy yëg si sama sama xol si tolluwaay fi mu fekk. la ma waxoon loo xam ne lu yéeme la ba ma laajee lu urbanisme benn ajuma nii rek ba ma waxoo ko dafa ne ma lii de am nañ njëriñ yoo xam ne lan lay jàppale yow Amadou Gueye mooy kayitu kër mu ne ma sama kër kii de amul kayit. jumaa yi amul kayit xaw ma ca dara te loolu mu jiitu lépp keroog ba mu ko waxee def naa noo xam ne ku ma fekkoon nga yàq dama kay dama koy poñe ndax dama ci yéemu mu ne ma nag comme si itte la nga indi la yàlla ak sëñ Tuubaa boo jógee yaa ñu ko seq ñëpp na ngeen daje wax ma fu ñu jaar ba ku dëkk Tuubaa am kayit ko ni ko yoon waxee ni ko waa Mbàkke amee jaareem kaw lax te nga tàmbul ci man loolu ba mu ko waxee ci laa génne wax ko préfet falaa xam itam Serigne Saliou loo ko jege jege jege jege bu loo waxee leen loo xam ne nii da ko war a jàllale da ko war a jàllale falaa xam itam ku mu xamul du mën a wax ak yow ba ma dem wax ko préfet préfet ñëwaat ci ci moom gëmul loolu sëñ bi ni kon ndox bu mu ñuy ba ma diggee ñëw ci yow dangeen ngeen ma taxaw ñu woo waa domaine ndax titre foncier la comme Touba titre foncier la dëkk boo xam titre foncier la lu ay kayit amu fii lu mel noonu. ban dajee waa domaine ak waa cadastre waa urbanisme ban dajee benn benn bis lañu génn benn këyit boo xam ne méngoog naa jamono méngoog naa yoon te boobu moo koy signé bu ne ñëwee ñu wax ko mu ànd ci ñu nañ ko doxal loolu nag yàlla muy dogal ci fii ma toog man yow gu loolu tam ngi dox waaye loolu amoon itte lool amoon itte lool. soxna yi liggéey ci jumaa ji man maay def galaas ak ndox jar suma pot. di maye ndox ba ñëpp daj bu ñuy liggéey ca kees ak sëñ Saaliw ga ñoo koy minaas ñooy defar lépp mooy mayee ndox ba ba ñooy liggéey ba wàcc léegi nag heure buñ may wooyee ci ndox mi rek demal fartu deema ay nu raxmati soxna Faat Sise laa tudd Saalum waaye jaayante mooma may turu ay nu raxmati soxna yëpp moom lañ may wooyee wóor na sëñ Bàmb parce que sëñ Saaliw maa ngi fàttali itam en 2004 ma sa woo gouverneur Alkali Traoré bi fi nekkoon moom woo ma maa Matar Jaxate ba mu ñëwee mu ne mat mu gouverneur damaa bëgg ngeen jàppale nu dëkk bi teg ci yoon boo tamit fa lay wane également républicain ak légaliste am ndax boobu Ablaye ko waxoon Ablaye ko gëm ba waaye dafa jaar ci gouverneur kon ci gàttal daal Serigne Saliou itam yëpp mooy dëkk bi waaye tege ci yoon marché bi lakk tey occasion gi xamoon na ko gisoon na ko moo tax mu waajoon marché fii ci këram bi waaye lii la yàlla dogal kon nag yàlla na ko yàlla fayal. Seex Saalihu Mbàkke dem bàyyi fi ay kàngam ci juróom-ñeent fukki atam ak ñaar ci la dëddu bàyyeek askanu senegal jaaxle ak tiis adduna ni selaw wéet ñu dëkkee jooy ki safoo woon ndaw ñi faale mag ñi nax ñu alxamis guddik 27 jàpp 28 décembre atum 2007 Seex Saalihu Mbàkke boroom xelkoom yàlla na nu ko yàlla fayal yokk ay leeram tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem أعوذ بك من فتنة الماء والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن أصحاب النيل وسوء المسيح السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين